صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké ay waay mbokki taalibe yi nañ ko wax jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké jërëjëf sëriñ Béthio jaamam ba yàlla na ay yërmandeem gën a sottiku sunu kaw sottiku na sunu kaw sax ndimbalam yëg nanu ko bu wér bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di yëkki kàddu bala maa wax dara di sant sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bachir di ñaan mu yàgg fi te wér ngi nuyu njabootug Serigne Saliou Mbacke ñëpp ci njiitul sëriñ Cheikh Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér moom it maa ngi koy sant cant bu wér Serigne Cheikh ki démb dem naa siyaare ji ko kaddu yamu yëkki ñaari kaddu képp la ndax moom bariwul wax nee na ma na nekk ci pëstéef te bu ko boolee ak ay wax dara mënu laa teree dem loolu nag loolu nag doy na bu sëkk ak barke ndax Mbàkke moom bi moom la ñu yaakaar tey moom la ñu ci moom la ñu yeeslu ko na nga ma dimbali ba bul ma sama bopp bul ma bàyyi ma mukk bu ma naree juum man sa doom laa sab taalube la ndax sëriñ Saaliwu ni mu demee woon ak sama baay yaa fiy sama baay yaa fiy sama sëriñ mbàkke rikk waay na nga ma dimbali ba bu ma naree juum na nga wañ wàññi ndax nun danoo amul lu sëriñ Saaliw sunu bunt ci sëriñ Tuubaa mooy sëriñ Saaliw moo tax nu bokk ci moo tax nu xam luy murit ba tax na Mbàkke maa ngi yeesal lépp ci yéen mu yëkkati kàddoom yi rafet ya dalal ma wan ma ni ma duma bàyyi ak sam loolu nag maa ngi ko ci sant kon man nanu xam ni nun de am na nu wéeruwaay mu sunu koo ñàkk nag ndax kii nu fi toogal di barkeelu ci jëmmam jë di Serigne Béthio sunu sang ba jàmbaar yi Serigne Saliou jë kooku tey jii maa ngi ñaan bokki taalibe yi fu waaye mën a toll na ko xalaat te ñaanal ko sunu borom ñaanal ko loolu day ñaan moom daanoo war ndax doomu aadama daa defalul suñu borom lu ñaan ko ba tax na saa suñu nekkatee nañu ñaan di ñaanal sëriñ bi am nañ yàqin ci ni ma nga ca sëriñ Sall ndax mooy sëriñ Sall sëriñ Sall wooy moom waaye du tere nun suñu digg ak moom fi mu nu jaarale lim nu musal li li mu tax mu xam ko ndimbal li mu def ci ñun taalibe gi mu gi mu xiirtal nampatal ñu ci war naa tax fu nu ko tudde ñu ñaanal moom day jaanam wàcc na suñu digg moom la ca war lépp def na ko matale na ko doomu aadama nag moom daa matul waaye moom day wax dëgg yàlla dimbali nañu ndimbal loo xam ni ndimbal li feeñ na bu wér tey sëñ Béthio ku doon nattable ak sëriñ tubaab sax bu tey jotee bis bii tey boo duggee ci pencam mii xam ni ku ku sëriñ tubaab dimbalee la ku xam ku ku fi dugg di xam ni boromu cër la lii fi xew doonu ci dara lépp moomam man de wóor na ma ni fa mu toog pencam mii mi ngi ci jàkk ak a fonkoon pencam mii ak a ko bëggoon ci ak fàttali di ko ko Serigne Saliou di jox muy julli kër ak nanga booba fii ab xaaxaam rek la woon jox ko ko dëral ko fii mu tabax fi kër ni ko ñëpp danañ la fa dañ daan wax naan sax sëñ Saliou jënd na sëñ Béthio Touba ci ay jamono ca jamono yooyu mu diw fii xotti ko dëkk fekki taalibe bi amul benn pàkk bu fi jaay ah waaw ñaa ñu joxoon nañ leen ay pàkk waaye ñi ci ëpp jaay nañ seen i waaye moom lañ da koo jox ay taalibe dëkk ak ñoom di fi sant Serigne Saliou ñuy dem di dem ba Serigne Touba defal ko li ñu ko defal mu mel ni dañu diis soppe ak jataay waaye soppe soppe jataayam boobu mel na ni mi ngi ci suñu biir tey ndax li fi daan def lépp ci ndimbalam def nañ ko fi. nagam mi tàntam bi jalaw jalawi màggal ji taalibeem yu baax yi nga xam ne ñoo ko gëm te bëgg ko ñu ngi fi jëfal nañ ko màggal ji maa ngi ciy potoxlu di sant bépp cantakoon ak foo mën a na ngir bis bii tey bu demee ba mel nii jëwriñu universel yu baax maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp dañoo am wàccuwaay ndax dañoo bëggoon sëriñ bi kenn ku ci daan ko liggéeyal kem sa kattan ba mu def la jëwriñ def la université kon ñooñu ay borom cër la ñëw nañu ànd nañ koo man jëwriñ jëwriñ université cantaakoon daara yëpp ci ñaari weer ñett gën ga bari ci la ñu waajal màggal ginnaaw bi sëriñ bi defee secret taalibe ñu baax ñu nga xam ni kéro bi mu defee secret bi ñom ci seen bop ñoo ñew and ko man yees lu ci sama jëm di war na na ñom day du ñu jóg ci keppaaru ñoo ñu mënuma leen ñak nuyu jaajëfal leen te di leen wax sama cant cant bu wér ma am ci maa ngi sant bu baax sama waajur yi nga xam ne ñu fi toog maa ngi leen di nuyu tàmbalee ci sama bàyyi murit di rakk seen béykat mel ni moom moom rek lañ fi am ci waajur yi fi nekk ginnaaw Cheikh Fall waaye góor di doomi maam Ami Thiam ami cham ak bambi cham ñoo bokk ndey ak bay ñaar ñi ñoo fi ñooy kilifa jotaay ndax ngi leen di nuyu di nuyu suñu yi nga ñu fi ci njiitul soxna mboos soxna Aïcha ak sama waajur bu jigéen mi ngi nii toog soxna ngi leen di màggal soxna yi toog nga xam ay andando suñu ci yi ma ngi leen yërëm lool ci naat bi sax waaye dama leen a ñaan bala ma leen a yeewi ngeen toog ba ma wax ci yéen yi ba noppi bokki taalibe yi soxna yi nañ leen fonk ñii ñoo ànd ak suñu suñu suñu waajal ba dara dul dara mel na ni ci ay loxoom moom soxna Mboose ci laa yaroo sama waajur bu jigéen bi nag nii toog waaye ci loxo yi soxna Mboosa laa yàlla digganteem ak soxna Asi da daan tëral ma mi fii tëral ma fii bokk man néeg ak ba ak sëñ Béthio loola ca jàmm gën la ca Cees li may wax nag mu yàgg la moo ñu yar àndandoo ñun mu dem ba danaka doom yi nga xamne mo leen jural bopam ma leen ma ko gënal ma leen ko gënal bi sëñ Béthio defee xew-xew bi da no danoo laxasaayu taxaw taxaway bo xamni faaw ma koy ma koy ma koy biral taxawaay bi dafa rafet ñom ak seenum njaboot ndax buñ ko xajabaloon mu xajama ah attention buma ma fi di wax à l'aise ah yéen a tax rek ndax yéen a seen i doom ay gor ngeen fa sëñ ca toog mu ngi di jàkk ci yéen ñu àndandoo man ànd ñu sell ànd ñu rafet maa ngi leen di sant bu baax loolu xam naa bu ngoonee sax dinaa ko gën a yaatal soxna yii seen laxasaay bi musuñ koo tekk ànd ak sëriñ bi guddi ak bëccëg maa ngi leen di sant maa ngi yeesal samay cant ak samay njëriñ ci yéen écran yi ngeen di gis ay écran la yoo xam ni danañ ci wane bu ngoonee sëñ Béthio siyaaram ya ak sëriñ Saliou liggéeyam ya cantam yam daan def yëpp tey danañ ko def moo tax bëgg naa tey 22 heures à partir de 22 heures na bâche bi fees ndax liñ fi war a wax ci sëñ Béthio daa bari tey lu waaye xam ci moom bëgg naa nga wax ko salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahin ma al xas wa safar